accident tali bi gën a métti ci taarixu Sénégal lim jur mooy ñaar fukk ak ñetti dogal yoo xam ne bëgg nañ buñ ko jëlee ba noppi lu ni mel dootu fi am muy ay dogal yoo xam ne nag jël nañ ko gannaaw ay waxtaan yu gudd rekk te guddee. bu ci jëkk dañ ni ministre bu nga xam ne moo yore forces armées ànd ak ministère de l'intérieur ak bu transport. war a jox gouvernement bi ci diiru fukki fan ak juróom benn décret boo xam ni dana indi kuréel bu bees te benn officier jiite ko waaye ñu dégg ko ministre bi nga xam ni moo yore euh, transport terrestre pour lépp loo xam ni moo lalu ci code de la route ñu mën ko doxal jaarale ko ci yoon ñaareel dogal bi dafa ni ministre de l'intérieur ak ministre bi nga xam ni moo yore wàllum transport mu jël ci diiru ñetti fan soixante douze heures benn arrêté bu nga xam ni arrêté interministériel parce que ñaari ministre ñoo koy signé ni oto bi nga xam ni mooy trans amee transport de personne diggante maanaam onze heures ci guddi ba cinq heures du matin dootu dawati onze ci guddi vingt trois cinq heures du bépp oto boo xam ni dafay def diggante dëkk ak dëkk dootu dawati c'est interdit waaye aussi am na beneen arrêté boo xam ne amoon na buy organiser maanaam dem bëgg dikk bi ci Dakar arrêté boobu daañ ko la premier ministre bi xam xamle woon na ne dogal yi ñuy jël état bi dina ci jël ay responsabilitéem ba mat sëkk. ñeenteelu dogal bi dafa ne le ministre bi nga xam ne moo yore wàllum finance ak ministre bi nga xam ne moo yore wàllum transport boole ci ak ministre bu yore wàllum commerce ñu ni maanaam fi lekk fukki fan ak juróom ñu wane benn euh, maanaam plan bu nga xam ni. pour ñu beesalaat le parc automobile fi leeg 15 jours ñetti ministre yooyu moo wax yépp ñu toog waxtaan génn benn plan boo xam ni pour ñu def le renouvellement des parcs automobiles programme boobu nag day nekk priorité ci PAP bi nga xam ni mooy PAP 2A bu plan Sénégal émergent di financement bi fu mu nekk nii financement bi taxaw na waaye nag dafa am benn subvention boo xam ne dañ ko préparoon pour dugal ko ci maanaam dans le secteur des transports publics financement boobu la dañ koy jox lépp pour ñu mën a renouveler le parc de transport. dogal yi nag ñi ngi ko jël ñaari fan rek gannaaw jéye ja am fee ca Kaffrine yóbbaale rek fanweeri nit ak juróom-ñeent. importation pneu occasion. neuvième en charge juróom-benneel dogal bi ñu ne ministre bi nga xam ne moo transport. mu jël benn dogal boo xam ni bépp oto buy transporter maanaam askan bi euh, euh, mu ñëw def contrôle technique ci Dakar parce que les contrôles techniques yi nekk ci région yi contrôle visuel la woon Dakar dong moo am maanaam fële ca am centre contrôle technique boo xam ne dafa am ay machine léegi auto transport yi nekk ci Sénégal yépp yaa xam ni région ba mën ci nekk da nga war a ñëw dakaar fii passé contrôle technique loolu ndogal boobu di tekki léegi pour bañ oto yi bëre daje fële ca centre dakaar centre Hann bi les véhicules particuliers daañu jël dogal boo xam ne pendant trois mois ñetti weer ñoom daañ leen bàyyi ñu bañ a passé seen contrôle technique pour que les véhicules de transport war a mën a ñëw passer les contrôles techniques donc fii au niveau de Dakar juróom-ñaareelu dogal bi ñu ni le ministre bi nga xam ne moo yore wàllum finance ak euh, ministre moo nga xam ne moo yore wàllum transport daañu ubbi ci nu mu gënee gaaw yeneen centre de contrôle technique dans les régions bu centre de contrôle technique yooyu day nekk centre de contrôle technique yoo xam ni euh, am ay machine léegi dootu nekk ci visuel daañ ko daañ ci def lu ma tollu juróom-ñett dans les régions à l'intérieur juróom-ñetteel ndogal ñu ni ministre bi nga xam ne yore wàllum transport mu jël maanaam bi ay dogal yoo xam ne léegi oto yi nga xam ne ñooy transporter askan bi mooy les véhicules de personnes ak muy transporter marchandise dañuy bloquer seen compteur dootul weesooti léegi quatre vingt ay dogal yu bari nag dinañ ko jël ci fan yi ñu jëm benn bi mi ngi jëm rekk ci oto yi nga xam ne dañuy transporter nit ñi duñ ko dawal lu weesu fukki at oto yi nga xam ne nag ñoom ay marchandise la ñuy yóbbu ñoom fukki at ak juróom lañ leen may ci diir gi. ministre bi nga xam ne yore wàllum transport terrestre mu jël benn arrêté ci lekk ñetti fan arrêté boo xam ne léegi dañuy tere ñuy transformer oto yi maanaam ñu leen di defaraat di eh, yokk ay chaise ak wala voilà di ko loolu dañ koy tere. te ndogal bi fileeg ñetti fan bu neexee yàlla dañ ko jël moo xam ne oto camion yi ngay transporter marchandise la ñu leen pour leen def ay oto yoo xam ni dañuy transformer dañuy maanaam dañuy yóbbu euh, askan bi donc loolu fileeg ñetti fan daañu jël arrêté bu nga xam ne léegi kenn dootul transformer oto yooyu nga xam ne marchandise bu mën transporter ñu leen def ay oto yi transporter askan bi fukkeelu dogal bi dañ la ministre bi nga xam ne mooy wàllum transport terrestre mu jël fii nag ñetti fan dans les soixante douze heures euh, arrêté bu nga xam ni dafa dellu sotti transformation bi maanaam am na ñoo xam ne dañuy transformé seen oto di yokk le nombre de passagers maanaam place yi toogee dañ koy yokk loolu aussi dañuy jël benn arrêté boo xam ne fii nag ñetti fan arrêté boobu lay dootu ñu jël dootuñu leen di transformé oto yi di yokk maanaam place yoo xam ne toogukaay bi maanaam di def ay versailles yi ngeen xamul fukkeel ak benn bu ndogal dañu ne ministre bi nga xam ne moo yor wàllum transport mu jël fii lekk ñetti fan dans les soixante douze heures arrêté bu nga xam ni lépp loo xam ni maanaam porte bagage la dañ koy tere te bépp oto bu nga xam ni am na porte bagage dañ koy teggi dindi ko léegi oto amul benn oto car boo xam ni dana amati porte bagage ba euh, buy daw fii ci Sénégal fii la ñetti fan daan jël maanaam dogal boo xam ni da koy tere définitivement bu ci mujj mooy vingt troisième mooy ñaar fukk ak ñetteel dogal bi ñu ne am na benn kuréel bu ñu tuddee le conseil supérieur de la sécurité ak de l'éducation daañu fexe mu dox nu mu war a doxee pour mën a recommandation yi mooy dogal yi ñu fi jël yëpp ñu mën ko topp benn ak benn te teg ko fu ñu ko war a teg doxal ko te duñ ci bàyyi dara